kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey aaya trente six ci suratu nisa ci page quatre vingt quatre bi wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a kon mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesalu santaat suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ñu fekke chehru ramadan gannaaw bañ ko doon mébét di ko ñaan ay weer suñ borom yàlla wërsëgal ñu fekke ko loole nekk xéewal gu rëy yàlla nañu yàlla xamal importance ba te wërsëgal ñu ñu dunde ko nam ko gërëme di ngeen xame it suñu yonente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alquran ji yàlla daataan noonu wàcce ko ci moom ci weeru koor loolu doyul suñu borom yàlla teg ca it guddi gu nekk mu yónni jibril alayhi salaatu wasalaam ñu ànd ak mu ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam di nafar alquran nafaruk jibril googee ñaar la mooy njàng ma ak maanaaya ndax suñu borom mu ne inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa ida qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alayna bayaana ñun ñoo la koy jàngal ñoo la koy leeralal loolu lépp mi ngi nekkoon ci intermédiaire u jibril alayhi salaatu wassalaam loolu moo tax ba lu bari ci goxi lislaam yi da ngay gis ay yenn jàkka yoo xam ne sax tafsir amu fa waaye bu weeru koor jotee ñu dem uti ko leen di tafsiral téere bi yàlla bi di leen ko leeralal loolee mbokk ay mbir la yoo xam ne it ñoo xam ni farata la suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne yonent bi alei salaam wa nazzalna ilayka zikra li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim wa laallahum yatafakkaruun farata la ci mbooloo mum mën a doon ñu leeral leen téere bi yàlla ci loolu it suñu borom musul yónni benn yonent lu dul da koo yónni ca làmmiñu xeet ba ñu dégg wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi li yubayyina lahum bépp xeet yàlla dafa yónni woon ci ñoom ab yonent bu leen di leeralal allahuma suñu yonent sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam moom dong la yàlla yónni illa kaafatan linnas moom la yàlla yónni ci nit ñëpp moo taxit dolli woon na ci de balligu anni jottali leen ma et yéen saraxule yi jottali leen ma yéen chinois yi jottali leen ma yéen portugais yéen wolof njaago joola lépp xeet boo xam ne am na ci kaw suuf balligu anni jottali leen ma kaddu borom bi jëll waala loolee mboo ko farata la ci bépp xeet bépp langue ñu jéem a am ci ñoom ñoo xam ne dañuy dem di dañuy jàngi téere bi yàlla bi ñëw di leen ko jottali loolu rek mooy jataay bi tax ñu toog fii ca nekk ñu di tafsir alquran dañuy nekk di leen jottali la ulama wu tafsir wax te seeni téere loolu mi ngi noonu di ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne ma wàcceb téereem ci jubluwaay bi gën a rëy mooy ñu jëfee ko yàlla nañu yàlla xamal lan la bëgg ñu jëfe ko ci téeréem dem dëpp lañu bañ jëfe ko donte ne ne jataay boobu nga toog nag di fa jàng téere borom bi ci jataay yi ëpp yaakaar ci sa dund la bokk ndax suñu borom moo ko wax wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fihi amul looy def ci kaw suuf amul alxuraan jooy jàng amul mbir booy def lu dul ñoo ngi koy seede ay dara gën te màgg ci dundug julit toog toogaay boo xam ne téeréb yàlla ba la fiy déglu loolu di génneel bu màgg niñ koy waxee daa ima nit ñi yàlla yi wërsëgal xéewal boobu néew nañ lool lool lool lool ci biir julit ñi allahuma suñu borom yàlla indi na beneen gëneel te mooy tey fa ñu daje di fa jàng téere bi yàlla bi nit ki mën naa nekk à des dizaines de milliers de kilomètres gën koo dégg gën koo comprendre ña fa toog na am ci li ñu yàlla ubbil tey ci wala informatique na doon enregistrement yi ñuy toxal wala en direct ba ñuy def su ko defee tamit ñooñu di taxawa loolu ñu ngi ñaan yàlla na yàlla fay leen doon surtout jàkka ji la wala na doon suñu télévision bi di Islam TV ak ñeneen ña nga xam ne ñooy tuxal ay audio ak foo ko mën a tuxale yàlla xam ci ban audio lay jubale jaamu bi yàlla yow nga nekk ci li nga xam ne mooy sabab kon incha allah niñ ni ngeen ko xamee it bu dee weeru koor gi yàlla jàppale nañu moom dañuy fexe ba bés bu nekk ñu daje fii jàng téere borom bi la ci yàlla subhanahu wa taala tudd bu kawar gi paase ñu toxal ko ci guddik àllarba ya comme ni ngeen ko xamee loolu kon tey ñu ngi war a jël aaya fanweer beeg juróom benn di fàttali it ne mooy bis bu jëkk ci la nga xam ne mooy shahru ramadan ci atum 1444 di dëppoog le 23 mars ci atum 2023 su dee Cheikh Ousmane pare na mu jël ñu suñu bind bu jëkk
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى وال- والجار ذي القربى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا barakallahu fikum suñu boroom jalla wa ala mu ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اي واي جامو لن يلا تبولن كبوكا لدرا وبالوالدين إحسانا نين دف نيكيت جمتا ويجريا وبذي القربى njëkk ga ñu def ko ñeel jegeñaale ya wal yataama ak jirim ya wal masaakiin ak ña nga xam ne dañoo doon ñu ñàkk wal jaari zil qurba ak dëkkandoo ba nga xam ne aji jegeñaale la wal jaaril junub ak dëkkandoo ba nga xam ne dala sori wa saahibi bil janb ak ka nga xam ne mooy àndandoo ba nga xam ne daa sus ak yow wabni sabil ak ka nga xam ne dafa nekk doomu yoon tumuranke ci dëkk bi wama malakat aymanukum ak la nga xam ne moom na ko seeni ndeyjoor inna allaha la yuhibbu man kaana muxtaalan faxuura yàlla day bëggul koo xam ne dafa doon ko yëg boppam doon koo xam ne day puukarewu ci kaw nit ñi mi ngi noonu muxtaal mooy ku rëy mi ngi noonu allazina yabxaluun ñooñee nga xam ne ña ngay doon aji nay way amuruna nas bil buxl ba pare di digal nit ñi ci ñu nay wa yaktumuuna ma aataahum allahu min fadli ñuy nëbb la nga xam ne yàlla dikk na leen ko jox leen ko cay ngëneelam وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ñun day ñu ngi waajal yéeféer yi mbugal moo xam ni mbugal muy leen di toroxal la mi ngi noonu mbokk dañoo gis ne aaya bi ñuy ubbee bokk na ci aaya yi gën a matale ci njëkk ci téere bu yàlla bi suñu borom di ñu ci digal ju fukki nit mooy fukki façon ci ay jaamam yoo xam ni dafa santaan nañu def njëkk ci ñoom la ca jiitu borom bi mu ne jaamu leen yàlla jaamu yàlla mooy lan mooy taxaw ci lépp loo xamee ni nii suñu borom yàlla da koo santaane ci ay wax ak i jëf nga taxaw ci loolu bokk na ca lam santaane mooy ñu bañ koo moy ba nga koy def nga boole ci ak toroxlu yaakaar pay ca loolee ragal mbugul ci ne boo ko deful li dana la ca dal loolu rek moom la ñuy tënkee la nga xam ne mooy jaamu yàlla jalla wa ala allahuma la nga xam ne it moom la ci yàlla gërëm mooy ñu bañ koo bokkaale ak kenn ca bokkaale googee da ngay gis ne la ëpp ci doomu aadama yi moo leen alak waaye doomu aadama yi bu doon yàlla def ne jaamu leen ma rek da ngay gis ni li ëpp ci ñoom amuñu problème pour jaamu yàlla waaye fa leen seytaane ma ni mooy fi suñu borom araamale ni bu leen ma bokkaale ak kenn looloo tax suñu borom it nee na wa ma yuminu aksaruhum billah illa wa hum mushrikun la ëpp ci jaamu yàlla yi nag dañ koy bokkaale te borom bi mu ne shay'a bu mu doon lenn bu leen ma bokkaale yonent bu leen ma bokkaale malaaka bu leen ma bokkaale lala dara dara mi nga noonu ana yàlla yërëm suñu mag ji Cheikh Souleymane Gueye daana wax ne kii bokkaale yàlla ak yonent bu yàlla moo kii bokkaale yàlla ak bu xaj ñoo yem mi nga noonu boo ko amul lenn luy màgg ci yàlla ba tax ngay nga koy bokkaale ak yàlla ki naan yaa Jibril alayhi salaam ak ka nga xam ne daan yaa mbaam xuux yéen a yem ca yàlla suñu borom nangul ñu koy bokkaale ak dara gis ngeen borom boobu it gannaaw loolu ña gënoon a yey ci ñu bokkaale leen ak yàlla muy suñuy waajur ñoo ñu defal loo xam ne kenn defaluñu ko ñu ngi noonu kenn defaluñ ko waajur yooyu suñu borom mu ne def leen njëkk jëm ci ñoom njëkk googee mbokk mooy lan mooy lépp loo man wala loo xam ci lu baax nga def ko ñel leen ànd ak jox leen cër respecté leen mi ngi noonu waqfit lahuma janahu zulli min arrahma toroxlu ñel leen ci lu dul lu yàlla araamal noonu la ñuy defee njëkki jëm ci waajur ya tawante ne ne yaay ya ñoo jiitu ci njëkk googe waaye mboole mi waajur da ngaa war a góorgóorlu def njëkk ci ñoom fexee it yow ndaw bul dem mukk ba fitna am nga naan da ngay féete ak sa baay wala féete ak sa yaay fexeel am ñoom ñëpp seen ngërëm heure boo demee ba ñàkk ngërëmu kenn ci say waajur échec nga ci échec bu rëy ci la nga xam ne mooy sa wàllu dund def njëkk jëm ca waajur ya waajur yooyu bu ñuy dund nga taxaw ci ñoom dab seen bànneex dab seen bëgg bëgg loo am nga mën leen ko waaye bu ñu dee it njëkk nga nga mën a def ci ñoom mooy bu leen fàtte mukk ci ay ñaan bu leen fàtte mukk di leen jéggalul bu leen fàtte mukk di leen génnil ay sarax wa bil walidayni ihsana gannaaw ba zil qurba al qurba mooy aji jege ñaale gannaaw sa waajur yooyee ña nga xam ne ñooy say doom say frère say mi ngi noonu rakku baay say mago baay bajjan ya tante ya ku nekk nam la gën a jege noonu la njëkk jëm ci moom malheureusement jamono bi ñuy dund tey suñu ndaw ñi xamatuñu zil qurba la néew ci ñoom sax ñoo xam luy aqi way jur waxuma di xam keneen ñi nga dund situation boo xam ne ndaw yi tey xarit lañu xam waaye am ma ay bajjani kii tanta kii kii ñoo bokk benn maama kii ñoo loolu kenn toppatootu ko léegi waaye mbokk sa jegeñaale bu nekkoon Chine wala mu nekk Portugal wala mu nekk fu mu mën a nekk xamal ni war ngaa rafetal jëm ci moom soo ko tanee nga koy dimbali mi ngi noonu su nekkee ci jafe-jafe nga xettili ko ila axiri gannaaw ba wal yataama mooy ñi nga xam ne yàlla daa dogal seen bàyyi faatu bàyyi leen fi am ñu koo xam ne da leen di taxawu ñooñu mbokk rafetal jëm ci ñoom ci fajal leen seen aajo naam waaye it jege leen am ci ñoom affection ba ñuy du ñu yëg vide boobu nga xam ne seen bàyyi bàyyi na ko fa loole ku nekk si ñu war a bàyyi ci xel loolu tax mu bokk ci bakkaar yi gën a garaaw ci bakkaar yi mooy toroxal ab jirim lekk alalam nat ko ni ngi noonu gannaaw bu mbokk mooy ñu rafetal jëm ci miskin yi miskin mooy koo xam ne amul moom amul lum la defal ñàkk na ku mel noonu mbokk xeeb ko toroxal ko da yomb lool waaye borom bi mu ne rafetalal jëm ci moom la gën a màgg ci liñ koy rafetal mooy la nga am nga koy bokk ak moom waaye it boo la ca respecté ko heure booy defal njëkki miskin boole ko mën wal aza mooy puukare wu ak xeeb leen loolee dara nga ci dul am mooy jox ko cir respecté ko xam ne lii yàllaa ko ko nattoo te bu ko neexoon mu nattoo la ko gannaaw ba wal jaari zil qurba loolee borom xam-xam yi am nañ ci tuuti juyoo am nañu ne jaari zil qurba mooy ki nga xam ne sa dëkkandoo la ba pare bokk ak yow kooku nag moo gën a yey def njëkk mooy ñaari ngi ñoom ñaar ñëpp say mbokk lañu waaye kii moo dëkk ak yow njëkk ga caña dëkk ak yow ñoo gën a yey nga def ñoom njëkk ci keneen koo xam ne dala sori waaye wal jaaril junub jaar bi nga xam ne tamit bokku leen dara waaye sa dëkkandoo la kooku it rafetalal jëm ci moom ca mbokku islam dañoo sant ñu rafetal jëm ci dëkkandoo xatta bu doon ay yéeféer lañu fii yëg xeexuñu ñu ci suñu diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jibril deñul dima dénk ay dëkkandoo ba jortoon naa dana ñëw ne nit ki bu dee na ko ay dëkkandoom donn daana waxit ne wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min bokkul ci ñi gëm mukk ñu ne ko moo ñoo kooku mooy kanimu yàlla yónni mu ne man laa yuminu jaaruhu bawaiqu koo xam ne ay dëkkandoom dañuy muslu ca ayam ku mel noonu xamel ne gëmul yàlla loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax donte na am na ñuy tudde jaarisul qurba mooy dëkkandoo bi la gën a jege jaaril junub mooy dëkkandoo ba sori ay boo amee ñaari dëkkandoo kii jege la kay sori la booy def njëkk jëkkeel ca dëkkandoo ba la gën a jege ñaari maana yépp lu wér la gannaaw ba wa saahibi bil janb ka nga xam ne dafa ànd ak yow nekk ci sa wet lu bari ci bu fassiru na ñu ngi koy firee soxna ya ñooñu nga xam ne ñoo la gën a jege ku lay jege ñoo la gën a jege sax sa ndey sa baay ci wàllu jëmm mi ngi noonu ka nga xam ne nii da ngay mën a bokk ak moom benn sër bu ngeen sangoo kooku na nga def njëkk ci ñoom allahuma am na ñu ko gën a yaatal saahibi bil jan bi mooy képp koo xam ne da ngeen a ànd jege yoo na doon su collègue de service bi la na doon da ngeen ànd ci tukki ba na doon lépp loo xam ne da ngeen fa ànd loolee rafetal jëm ci moom te loolu it mbokk mi ngi noonu ci tuya ci tuyaaba yu rëy la nit ki nga nekk ak moom rafetal jëm ci la nga xam ne ci moom la bokkoon na ci tey jii ñoo xam ne dañoo ànd ci circulation bi des fois ngi gis ay xeex ay xuloo bal ay accident mortel lan moo ko waral mooy nangu wuñoo muñul lente dix secondes am na situation boo xam ne dix secondes rek boo ko mënaloon ngeen teqali koo ci jàmm waaye ku nekk jàpp na may priorité ku nekk jàpp na gouvernement baax oto ku nekk jàpp na nangam ba indi ay catastrophe loolu buñ gisoon la nga xam ne mooy ànd bu rafet saahibil janb loolee dana luñ musal ci lu bëri la ca des moom mooy ibnu sabil mooy koo xam ne dafa ñëw ci dëkk bi tumuranke ñu ngi noonu amul loo xam ne nii moom la ko yóbboo te loolu mbokk suñ jamono yi tey fi la alhamdu suñu borom yàlla ubbil nañu ay buntu yu yaatu nit ki mën ngaa tumaranke fii wo téléphone sa waa dëkk ñu yéen la xaalis waaye loolu yàggul de bu njëkk da ngay gis nit koo xam ne mën na am lu nekk waaye yàlla dogal mu daal di doon koo xam ne nii ku tumaranke la am na benn waay bu may nekk lii jàpp naa ci milliardaire yu Sénégal ci la bokk yàlla na yàlla barkeelal ko nee na dafa dem Kaaba ga moom ñu mu àndaloon ma nga leen bàyyi Medina moom dong mu dem parce que dafa beneen dëkk moo doon jàll dugg ca Kaaba di tawaaf rek ñu dagg kamaraam mi nga noonu defeetul fifteen gis ngeen mu jaaxle tumuranke falilal hamd nee na di wër ci kaaba gi ba gis ay malien la gis nee na expliqué leen kaam ñoom ñoo ko abal xaalis ma boole na gaa yi nekk Madina te loolu da ngeen gis mbokk duñ sax duñu ay sénégalais mais ay malien lañu mais comme boo ngeen demee bitim réew Mali ak Guinée amatul gis ngeen yéen africain da ngeen nekk ay mbokk loolu it muy wone ne doomu aadama bi loo am am suñu borom mën na laa nattu nga nekk situation boo xam ne fokk soxla nga ku la jàppale kon moo tax bu dee aussi yow dëkk ba nga nekk nit ñëw na nga gis ko mu tumuranke loo mën jàppale ko mën na am dëkk ba mu nekk moom bërëm alal ju bëri la fa allahuma comme niñ ko waxee nag suñu borom yàlla indi na ay yombal waaye du tey maanaa bi moom dafay sax ba ila yumi diin borom bi lim ko tëjee di fukkeel ba mooy ña nga xam ne seen i ndeyjoor ñoo leen moom te loolu mooy seen i jaam donte ne jaam yooyu mën nañu wax amatul waaye am na jaam yu bees li tubaab yi tudde l'esclavage des temps modernes bokk jaam yu bees yi mooy lan mooy ñi nga xam ni liggéey yi ñuy liggéey mënuñoo bañ a liggéey ndax bu ñu liggéeyal duñu lekk ba pare ñu ngi leen fay teg loo xam ne wóor na ne jaaduwul ak bari tey ay nit ñoo xam ne ñi ngi xëy ci service ñi ngi leen yoral des mois de salaire fayu ñu leen ko des dee leen fay des salaires misérables waaye dañoo obligé xëy ñooñu la ñuy tuddee jaami jamonoy tey loolu it mbokk di képp ku yàlla wërsëgal ay nit nekk sa kilifteef na doon ca magasin ba ca société ba ca usine ba direction ba la ah fu mu mën a doon nga xam ñoo xam ne ni da nga leen a yilif ngalla waaye rafetalal jëm ci ñoom rafetalal jëm ci ñoom loolee ci jaamu yàlla la bokk mi ngi noonu rafetal jëm ci ñoom ci jaamu yàlla la bokk borom boobu nag mu ne moom bëggul muxtaal koo xam ne jàpp nga ne doo moroomi nit ñi xeeb nit ñi ci sa alal ci sa pouvoir ci sa xam-xam loolu yàlla bëgg ko ka gën a bon nag mooy alfaxuur ka nga xam ne moom dafay feeñal ci kaw nit ñi xeeb leen di leen toroxal suñu borom yàlla mun a bëggul ko mel noonu te loolu kon mbokk gis ngeen aaye bi li muy gàtt gàtt gàtt da ngay gis ne bu ko nit ñi jëfe woon am jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira yal na yàlla yombal ko ci ñun borom boobu nag di wax muxtaal faxur yooyu mooy ñi nga xam ne dañoo doon ñuy nay alizina yabxaluun nay ñaari façon la nay bi gën a bon mooy nay ci farata yi yàlla gàll solos kii nay ba du génne zakat nay na ba nangul sacrifier la ko yàlla may ay millions ne day aji ji mag nay ci bañ a fay ay bor lépp loo xam ne farata la nay ci moo gën a bon leen lu dul loolu waaye it nay ci bañ a dimbali jaami yàlla yi bal nay ca boppam am na ñoo xam lu ñoo nay ba nay ci seen bopp gis koo xam ne lu ne am na ko waaye boo ko gisee yéene ko ab sarax loolu ëpp naa def mbokk jële yàlla daa bëgg bu xéewale ab jaamam xéewal boobu feeñ ci yow ndax xiiwal gi feeñ ci yow moo tax nit yaakaar la ba di la sàkku ci yow ndimbal waaye koo xam ne heure bu ñu daj yow jàpp ne maa ko tane noo koy noo koy dimbali ko mi ngi noonu yamuru nas bil buxlu loolu mooy nay ki gën a bon nag mooy yow nay ba pare di digal nit ñi ñu nay am na ñoo xam ne bëgguñu gis ko def lu baax mi ngi noonu bëgguñu gis ko def lu baax heure bu ñu ab xarit wala ab jegeñaale ñu gis ko muy dimbali nit ñi luñ mën ci découragé ko dañ ko ko découragé loolu mbokk di musiba bu bon mu lay jàngalit contraire ba mbokk noonu la baaxee allazina yabxaluun seen contraire mooy ñan mooy ñi nga xam ne dañoo tabe mi nga noonu mbokk tab dafa jege nit ñi jege aljanna comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee nay dafa sori nit ñi sori aj jege sawara comme ni ko yonent bi alayhi sallam waxee waaye it boo amul loo loo tabee ngay digle ak tab képp koo digal lu baax bu ko defee tuyaaba bu ko yàlla bind bindal la ko mi nga noonu koo digal lu baax rek ca mbokk ga te miskin ya te dëkkandoo ya nga digal ko lu baax tuyaaba bu ko yàlla def bindal dañ la ko bindal borom boobu teg ci ne mooy ñii nëbbali leen yàlla jox ci ay xéewalam nëbbali leen yàlla jox ci ay xéewalam ndax feeñal li la yàlla jox ci xéewal mooy la la yàlla jox nga jël ko bokk ko ak nit ñi la la yàlla jox nga jël jox nit ñi kooku moom mi ngi feeñal ne yàlla xéewal na ma kaay ma bokk ko ak yéen waaye ka nga xam ne la mu yor mu nga tëjoog moom rawatina suñu jamonoy tey mbokk alal bu jëkk ak jur la daan doon wala ay tool nëbboon ko jafe lool am maa nag ñi ngi dund jamono boo xamee ni nii alal ci compte lay nekk benn waaye mën na nekk milliardaire kenn du ko xamal dara loolu nag mbokk julit xamal ne xéewal la gu la yàlla defal ngal la way nëbb xéewalu yàlla ba nay ca farata nëbb xéewalu yàlla ba nay ca la nga xam ne ni mooy ndimbal loolee ci musiba yi gën a garaaw la bokk moo tax borom bi ne ñi mel noonu day ñi ngi leen di waajal la nga xam ne moom mooy mbugal bu leen di toroxal képp ko nay ba nay ci zakat képp ko nay ba nay ca farata ya war ca alal borom bi nee na mi ngi lay waajal mbugal moo xam ne mbugal mu lay toroxal la mi ngi noonu Cheikh Ousmane
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا
hasbuk wa barakallahu fikum suñu borom subhanahu wa taala mu ne wallazina yunfiquuna amwaalahum ña nga xam ne dañuy dépenser seeni alal ria annas ngir ngistalu nit ñi kese wala yuminuuna billahi wala bil yawmi al axir te gëmuñu yàlla gëmuñu bis bu mujj ba wa man yakuni sheytaanu lahu qarina koo xam ne sheytaane daa nekk ñeel ko ab lënkaloo àndandoo fa saa qarina aka bon kooku mu lënkalool wa maada alayhim moo lan moo nekkoon ca ñoom law aamanu billahi wal yawmi al axir su doon dañoo gëm yàlla gëm bis bu mujj ba wa anfaqu mimma razaqahum allah ñu dépensé ca la leen yàlla wërsëgal wa kaana allahu bihim alima te yàlla day nekkoon ne ci ñoom di aji ku leen xam inna allaha la yazlimu misqaala zarra yàlla day du tooñ lu tol ne gën jaa tuuti ci poussière zarra arab da ko doon wax la gën a tuuti rek ni ngi noonu wa in taku xasana ah doonte ne bu nekkee aw yu moom yudaifha suñu borom mu ne da koy ful wa yu'ti min ladunhu ajran azima te day joxe ci lu jóge ci moom pay goo xam ne gu màgg la fa kayfa ida jina min kulli ummatin bi shahid ma naka lay nekkee bis bu ñu indee ñeel bépp xeet ci aji seede wa jina bika ala haulai shahida yow nag ñu indi la ci sa xeet bii ci ñii nga nekk seen aji seede yawma idin yawaddu alladina kafaru wa asaw rasul bu keroog day doon na mébét di sopp ña nga xam ne dañoo weddi woon te mayoon yonent yàlla ba law tusawwa bihim al ard ay waay ak a neexoon ñoom maasale ci ñoom suuf wala yaktumuuna allaha hadisa te bu keroog day duñu mën a nëbb yàlla benn wax mi ngi noonu mbokk suñu boroom wax na ña nga xam ne la leen yàlla wërsëgal dañ koo denc dépense wuñ ca allahuma lu dul ñàkk dépense boobu mi ngi jëm ci fu neex yàlla waaye bu dee nag ci ak yàq ak ngistal ñoo cay jiitu man ñi nga xam ne dañuy dépense seen alal ngir ngistalu nit ñi te loolu mbokk da ngay gis ne cheytaani suñu borom mu ne yaidukumul faqr wa yamurukum bil fahsha cheytaani heure boo jógee jëm ci yàlla mu ne déet loo bëgg a def mu ne la déet amma boo jógee ci yàq ak ngistal loo bëgg a def mu ne waay lii néew na waay yokkal waay gis ngeen loolee mbokk da ngay gis dañ koy gis ci nit ñi rawatina nag mbokk ñun dëkk yu mel ne Sénégal yàlla nattoo nañu ñoo dàq yàq ci ngistal da doon loolu ci jaamu yàlla la ay daje yoo xam ne nii lañ cay dépense ci alal buñ la ko waxoon da ngay yéemu ci yàlla la ci ëpp mooy wane rek ne rey nañ taada gileem rey nañ taada nag rey nañ taada nangam ngir ngistalu kese gannaaw ba it suñ mbokk jigéen ñi lu ñu man ñu naxtaan ak ñoom xam ne li ñuy def Sénégal lu xaraam la daa di woote am ndaje rangale ay kees ay piis yu dul jeex caméra yi wër la bongo yi wër la tama yi wër la nga naan waaw goro nangam goro nangam goro nangam ay chaîne or ay million ay nangam loolee mbokk nañu xam ne mooy dépense ngir ngistalu ci nit ñi loolee ci seytaane la jóge borom boobu mu ne ñooñu ñooy ñi nga xam ne gëmuñu yàlla gëmuñu àllaaxira mbokk ki gëm yàlla gëm àllaaxira nam ko war a gëmee du jël alali yàlla ji fam ko war a def defu ko fa xanaa wëlbati ko di ko def ci ngistal ay gëmuñu yàlla nañ ko war a gëmee gëmuñu àllaaxira nañ ko war a gëmee borom boobu nag mu ne ki seytaane nekk lënkaloom ak bon ab lënkaloom ay seytaane moo leen di teree def lu baax seytaane moo leen di xiirtal ñu jël ay alal ju dul jeex di ko yàq di ko ngistalu ci nit ñi donte ne mbokk ngistal benn baaxute ngistal ci jaamu yàlla ngistal ci alal ngistal ci jihaad ngistal ci xam-xam ngistal ci lu mu mën a doon bal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na hadis bu tiitlu nee na yowm alqiyama bokk na ñu ñuy jëkk yóbbu sawara koo xam ne ab borom xam-xam la woon jàngale diine fu nekk ñu ne ko waaw yow li nga doon wax loo ci bëggoon mu ne axanaa nit ñi gindeeku rek ñu ne ko déedéet da ngaa bëggoon ñëpp fonk la yëkkati la ne yaa fi sut loolee loolu rek nga ci jublu woon xalaatu woon yàlla xalaatu woon àllaaxira loolu wax nit ñi waxal nañ la ko loolu sa pay dañ koy dugal sawara ñaareel bi mooy koo xam ne nii alalam yoroo la yoroon fu ne mu dugal fa alal ji ci lu neex yàlla ak ci leneen bu ñu ko laajee na ko waaw yow loo ci nammoon mu ne xanaa dimbali diine yàlla ji ñu ne ko déedéet bëgg woon lu dul ñu ne yaa fi gën a tabe yaa fi gën a baax yaa fi nangam loolu mooy sa pay ki dee fi sabilillah waaye yow loo nammoon ci lii ah man day dama doon jihaad ngir kaddu yàlla jëm kaw ñu ne ko déedéet la nga bëggoon rek mooy ñëpp gis sa njàmbaar sa loolu mooy sa pay loolu mbokk moo lay tax ba jullit bi foo toll del xeex ak sa xol gën jaa màggi xeex borom xam-xam yi dañ naan bokk na jihaad bi gën a màgg ci jihaad yi mooy xeex ak sa xol ba mucc ci ngistal yàlla na yàlla yàppala ñu ci mi nga noonu loolu mi nga noonu kenn mucc ci lu dul ko ci yàlla subhanahu wa taala musal looloo tax ki nga xam ne mooy abubakar siddiq radiallahu anhu yeneen bi mas tay wax ci danger ngistal danger ngistal ba mujj mu ne ko waaw lii ma mucc ci dara jafe di mu ne ko kaay ma jàngal la ak ñaan da nga naan yàlla allahuma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam e yàlla yal nag ma musal ma lay bokkaale lenn lu ma xam yal nag ma baal li nga xam ne xawuma ko te mooy fooy tollu booy defee loo baax it nga ñaan yàlla nangul la ko loolu la ibrahima defoon rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim kon mbokk ngistal mi ngi noonu borom bi nee na ñi koy def dañoo lënkaloog cheytaan mbokk lënkaloog cheytaan yi day tax mu lay digal lu bon waaye dañ ci dégg it ne yonent bi alayhi salaam daan wax ne amul kenn ci yéen lu dul am na qarin bu ko yàlla nattoo mu ànd ak moom benn cheytaane bu ànd ak moom ñu ne ko waaw même yow mu ne même man lu dul yàlla damaa dimbali ci moom fa aslama aw aslamu amul kenn ci yéen lu dul am na ko ko ànd ak moom jublu yàqal ko ñu ne ko même yow mu ne même man waaye man yàlla damaa dimbali cheytaan yi moom daa dugg ci lislaam du ma digal ci lu baax lu ma digal lu dul lu baax am ñu ne yàlla damaa dimbali mu mucc ci moom ay amul lenn loo xam ne ni ma mën na ma ko def amma yow julit xamal ne yaag cheytaane boobu yéen a ngi ci xeex daiman bi ila yawmi din tant que yaa ngi fàttaliku ko yàlla di dellu ci yàlla day mel ne picc mu kii sa gannaaw waaye gis boo sàggane mu ñëw dal sa kaw loolu nga bàyyi ci xel bu baax bépp xalaat bu bon bu la traversé ci cheytaane la jógee heure boo bëggee def lu baax am lu naan la bu ko def ci seytaane la heure bu la li la xiirtal ci lu bon ci seytaane la bàyyi ko xel du dindi du du ko découragé mukk mukk yal na yàlla yërëm suñu benn góor gu ñu daan dëkk fi góor gi Baba Babacar Touré ak ma soo waxee Bilal Thiam Papa Abdoulaye Touré mu mu ne seytaane du tekki ngembem Bilal ne ko ah du tekki ngembem mu ne tekki mukk moom kay da ko yolomal rek boo sàggane mu takkar ñëw kii la du découragé bi ila yu middin borom boobu nag subhanahu wa taala kon mu ne képp ko seytaane nekk àndandoom ba jiitu ko mu topp ci moom perte na perte bi gën jaama gi ci perte seytaane boobu yéen mbokk nañu xam ni ni mu amee seytaane nit la amee seytaane jinne wala boog ni mu amee seytaane jinne la amee seytaane nit seytaane nit mooy kan bépp àndandoo boo xam ni foo bëggee def lu baax mu indi la ay lay foo bëggee heure bu jógee di taaral ci yow lu bon xamal ne ko ko seytaane la daw ko ni ngay dawee gaynde képp koo xam ne ànd ba ngay ànd ak moom doo ci gis lu dul dellu gannaaw sa diine daw ko ni ngay dawee gaynde borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne waaw yéen ñooñu di nay lan moo leen doon ñeelal bu doon dañoo gëm yàlla gëm yowmal qiyaama la leen yàlla wërsëgal ñu dépensé ca ana ban lor moo cay am wallahi benn lor amu ca suñu borom nee na wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yuxlifuhu yàlla mooy wërsëgal mi ma razaqahumullah alal di ndax yaa ko moom déedéet yàlla lu ko wërsëgal borom ñe nag loo dépensé dinaa la wutalal lu ko gën wala tax mbokk jullit du nay benn da ngay xam li ngay dépensé mi ngi lay xaar yowmal qiyaama tey da ngay dem banque gis gaaj waajur rang ba tànk yi métti pour lan pour jël alal dugal ci kontam ñëw di ko jox waa ji nekk ci kese bi yow mi xamul ah waa kii moom mi ngi ko jox alalam de joxu ko dafa bëgg mu dencal ko ko am déet alal ji ngay jox yàlla it mi ngi la koy dencal àllaaxira deuxièmement suñu borom nee na dama koy remplacer mi nga noon dama koy remplacer yal na yàlla dolli yërmande suñu mag ja Aba Tahir Demba Diop ana wax ni dépensé ji la yàlla wërsëgal mi ngi mel ne ki amoon benn pax ci boori dex ga nee na dex gi mi ngi romb bu rombee day feesal pax bi am déet mu ne nag boo tànkee pax bi luy ñëw loo tànk rek ndox mi ndox mi remplace ko am déet waaye mu ne boo bàyyi noonu pax ma pax ma noonu rek lay mel waaye tànk yaa ngi tànk dex gi di di ko remplacé gis ngeen mu ne it alal noonu la te it noonu la ko yonent bi alayhi salaam waxee nee na amul benn bis waxul benn weer de nee na amul benn bis bu jant bi fenk lu dul yàlla yónni ñaari malaaka kii li muy wax ba jant bi so yàlla sa bépp jaam bu gis sa bunta ngërëm mu def ca yàlla na nga ko wutalal lu gën kii li muy wax ay yàlla sa bépp jaam bu nay ca la nga santaane mu def ca yàlla na nga ko indil ay tolof tolof looloo tax benn waay buntu yiwe nga nii nga mënoon ca def cent mille francs defee ko ca yàlla ubbil la buntu hôpital nga def ci dix millions ci doo wér gis ngeen loolu kon mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne yàlla moo gën a xam ay jaamam te nee na du tooñ kenn ci dara laa yuzlimu misqala zarra heure boo defee lu bon lu bon loolu rek la la yàlla di bindal yàlla du loo tuumaal mukk giñ la loo deful tey jii boo demoon société yi nekk yépp demal Sénélec demal Sones foo dem am na lu ñuy tuddee service contentieux da ngay gis góor gi càmm ñëw waaye man facture bi ngeen ma yónnee man lii consommé ma ko gars yi xool compteur yi ko ah no wax nga dëgg nangam loolu amul yowmal qiyaama la nga fay fekk ci ay ay ay ay musiba ay ay bakkaar yaa ko fa def amaa nag bu dee tuyaaba suñu borom da koy ful amul benn jaam buy def benn tuyaaba lu dul la gën a néew borom bi ne malaaka yi bind leen ko ko dix fois wala soixante-dix fois wala sept cent fois léeg-léeg suñu borom mu ne wallahu yudaifu liman yasha léeg-léeg yàlla muy fulal boppam nu mu ko neexee bokk na ci koor gi ñuy koor yàlla na yàlla nangul ñu ko yeneen ci bi alayhi salaam nee na mboole muy jëf yàlla danaan malaaka yi fay leen waa julli fay leen waa aj fay leen waa zakat fay leen waa kii koor nag man maay fayal sam bopp koor maay fayal sam bopp mi ngi noonu yudaifu liman yasha borom boobu subhanahu wa taala nag ne te mooy joxe lu jóge ci moom pay boo xam ne pay bu màgg la mbokk lu jóge ci yàlla rek màgg na am déet loolu tax abubakar ni saddiq moom mu leen doon wax sànq yonent bi alei salaam déggaloon na ko te wallahi ay waay ak ne xoon ñu xam dund sahaaba yi dund sahaaba yi xamoon ko danañu leeralal lu bëri mbokk sahabatul kiram dañoo jiitu woon ci jaamu yàlla booleeg ragal yàlla ku nekk di xalaat ndax man ëllëg alaxira danaa mucc ñun nag ñun créé nañu ay nit ñoo xam ne jàpp nañ ne quota yeneen yàlla di jagleel adduna yëpp xaj nañ ci yeneen ci bi alayhi salaam na ko Abu Bakar heure booy julli del wax allahuma inni zalamtu nafsi zulman kasira wala yaxfiru zunuba illa ant faxfir li maxfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim Cheikh Ousmane jàng hadis boobu Belal Thiam di jàng nga ko mi ngi noonu loolu mooy mbir bi te mooy Aboubacar Siddiq ak maggaayam yonent bi ne ko neel Abouba neel neel neel aw del ñaan Aboubacar yàlla ma de tooñ naa sama bopp tooñ yu bëri tooñ naa sama bopp tooñ yu bëri xam naa ne kenn du jéggale bàkkaar ku dul yow yàlla nag ma jéggal jéggal gu bawoo ci yow mbokk lii bawoo ci yàlla ak li bawoo ci jàmm bi bu ëpp mooy la bawoo ci yàlla looloo tax say bakkaar lu mu bari bari bari bu sa tuub selleer yàlla bal la yaa ngi dégg am na koo xam ne nii sëñ bi tooñ nga koy tooñ danaan du ma ko baal ba ila yumi din gis ngeen du ma ko baal ba ila yumi din bilal can mii am na histoire bu amoon ci mbokkoom nee na ba mu demee di wax waa ji waaw bu dee da nga jàpp tooñ ko baal la ko rek bu ne naa dem sawara waaye du ma ko baal am mi ngi noonu yaa ngi dégg ama suñu borom nag moom moom mooy al ghafuru rahim gis ngeen al ghafuru rahim kon min la dunhu mooy li bawoo ci moom jaam bi toujours loolu ngay bàyyi xel la bawoo ci yàlla moo ëpp li bawoo ci yow borom boobu nag na doon loolu nag ci wërsëg wala ci jéggal ga la ci lu mu mën a doon amma aaya bi suñu borom ne ma naka lay demee bis boo xamee ni nii daañ woo xeet yépp ñu indi koo xam ne moo leen di seede yow ñu indi la ngay indi ngay seete ngay seede xeet bi te mbokk yowmal qiyaama yàlla dana woo ana xawmu nuux ñoom ñëpp ñu génn ana nuux kaay ci ñii laa la yónni woon ndax jotti li ngeen la ma leen yónni woon ko defee xeet yi seede na nuux jotti li woon na gannaaw ñun waaw yéen waa xeet bi li nuux santaanewul ñu def ko ana ko ko ci def ñekkate def ñu seppi leen yóbbu àjjana ñekka ci deful ñu yóbbu leen sawara Huud Saalix ba baa ñëw ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla xam ñaata centaine de milliards la ñuy doon suñu borom yàlla indi xeet yépp a teg indi yonenti yàlla bi ne ko kaay ay yow yonenti yàlla bi ndax jot li nga li ma la yónni woon gis ngeen mbokk aaye bi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam def noonu Ibn Mas'ud jàngal ma alquran sahaba yaa ngi toog ibnu masud ne ko ah man lay jàngal alquran te ci yow la yàlla wàcc alquran mu ne waaw dama koo bëgg di ko dégg ci keneen te loolu it mbokk gis ngeen jataay yi ni mu amee solo dama bëgg di ko dégg ci keneen sahabatul kiram noonu lañ meloon dañ daan dem muñ ma sartegu ne diw jàngal waay yëkkati alquran gis ngeen abdu ibnu masud di jàngal quran te lan mooy njàngu ibnu masud mi ngi noonu di jàngal quran ba jàng ñeen fukki aaya yi ci suratu la nga xam ne ni mooy nisa mi ngi noonu ñeen fukki aaya ba ak benn bi mu yegsee fii yonent bi alei sam na ko doy na doy na ibnu masud nee na bi ma gëstoo maa ngi fekk bët yi ña nga taa ak rangoon te loolu mbokk yonent yàlla mi ngi xalaat xeetam bi wóor na ko ne la ëpp ci ñoom dañ koo moy am déet loolu doon loo xam ne nii mi ngi noonu donte ne moom sallallahu alayhi wa sallam taxaw naag cent quarante mille ci ay sahaba ca makka laaj leen hal ballaxtu ndax jottali naa li ma yàlla yónni woon ñoom ñëpp ñu seede na ko ah kay jottali nga looloo tax daana wax ne bàyyi naa leen ci yoon woo xam ne layluha ka nahaariha yoon wu xal mahajjatil bayda yoon wu leer nañ kenn du jéng yoon boobu lu ñu ko nar a alku yonent bi jottali na léegi nag suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na bu keroogee bañu yonent bi alayhi salaam ñu leeral lam jottili woon képp koo xam ne moo yónne yonent yàlla bi doon na mébét ak a neexoon ñu maase la suuf ci moom te mbokk yawmal qiyaama yàlla day dekkal lum ma sa bind gaynde yaag ñay yaag picc yaag jaan yaag lépp la yàlla di dekkal moo tax mu nekk mbir bu ñàng mbir bu ñàng ñoom yàlla da leen àtte ci seen diggante xar mi mbëkkoon moroomu xaram gaynde gi lekkoon ilaaxiri yàlla di àtte seen diggante ñoom ñëpp gannaaw ba ne leen dem leen nekk poussière ñoom ñëpp ñu delluwaat nekk poussière duñ leen yóbbu sawara du leen yóbbu aljanna amma it ki nga xam ne jaarul woon sunna ci sunna yonent bi alayhi salaam te gis nga borom bi mu ne asaw rasul mu wane na mbokk yonent bi dañoo war a topp sunnaam dañoo war a topp sunnaam ña nga xam ne dañoo may yonent yàlla bi doon nañ mébét ak a neexoon ñu ànd ak mbaam xuux yaag mbott yaag nekk suuf ndax xam nañ ni buñ jógee foofu lan moo leen cee xaar mooy sawara rek moo leen di xaar lii kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax kon mi ngi noonu Cheikh Ousmane
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وأن أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل
barakallahu fikum suñu borom kon subhanahu wa ta'ala mu ne fa kayf ya ayyuhal ladzina amanu ay yéen ñi nga xam ne nii da ngeen a gëm la taqrabu salaa bu leen nekk mukk di jege julli wa antum sukara fekk ne da ngeen a doon ñu mandi hatta ta'lamu ma taqulun ba baa ngeen di xam li ngeen di wax lu mu doon wala junuban bu leen jege julli fekk da ngeen ànd ak janaba illa abiri sabil lu dul koo xam ne dafay romb ci yoon hatta taxtasilu lu dul ne da ngeen a song wa in kuntum marda su dee ne nag da ngeen a feebar aw ala safar wala ngeen nekk ci tukki aw jaa ahadu minkum min al ghaait wala mu dikkee kenn ci yéen jóge ca al place yañ doy demee wanag al ghaait mooy place bu suufe ba bu jëkk nit ñi ci xurye lañ daan dem daan fa demee wanag aw lamastum nisa wala ngeen laalante ak soxna ya falam tajudu maa ca amuleen ndox fa tayammamu e waay na ngeen doon tiim ay na ngeen jublu doon aji tiim saidan tayiba said mooy lépp loo xam ne dafa kawe ci kaw suuf xeer yaag beñ baag lu mel noonu famsahu bi wujuhikum wa aydikum na ngeen massa ci seen kanam yi ak seen loxo ya inna allaha kaana afuwan kaana afuwan ghafuura sa borom yàlla day ku jéggale la ca kuy muur ay bakkaar ghafuur mooy kuy sutural di muur bakkaar ya alam tara ila alladina utu nasiban min alkitab mu ndax gisoo jëm ci ñi nga xam ne dañoo jot benn cër ci téere bi yashtaruuna dalala ñoom de ñi ngay jënd ak réer wa yuriduna an tadillu sabil ñi ngi bëgg it ngeen di réere la nga xam ne mooy yoon wu jub wa ñi ngi noonu mbokk suñu boroom dañuy woo ci suñu woote bu jëkk ci suñu tafsir bi ci yaa ayuha allazina amanu muy li gën a tedd lu muy woo ay jaamam e yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm te mooy ñi gëm yàlla bokkaale wuñ ko ak dara mu daal di joxe ay ndigalam borom xam-xam yi dañuy wax ni foo gis yaa ayyuhal lazina amanu xamal ne la ca topp bokk na luy mottali ngëm ñàkk koo taxawe bokk na luy mankil ngëm yaa ayyuhal lazina amanu e yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm suñu borom mu ne bu leen jege julli fekk da ngeen a mandi bu leen jege julli fekk da ngeen a mandi loolu mbokk dañuy gis ni bu doon te ne alquran dañ koy juqi rek aaya num la neexe da ngay wax ne mandi dara niwu ci am déet ndax bu leen dañu jege julli fekk da ngeen a mandi allahuma du dul ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala lii di sangara da ko araamal waaye daa fekkoon arab yi bëgg sangara ni sénégal yi bëgg ataaya moo tax mu def ko étape étape bokk na ci étape yooyu wa mu ne leen xam leen ni lii nga xam ne moom mooy naxiil wal anaab yéen a ngi ci jëlee sakaran wa risqan xasanan yéen a ngi ci jëlee lu leen di màndal ak wërsëg bu baax muy waññe na kon sàngara bokku ci wërsëg bu baax am déet ñaareel ba yasalunaka anil xamri wal maysir qul fihima ismun kabirun wa manafiu linnas wa ismuhuma akbar min nafihima ñi ngi leen laaj sàngara ak carte ne leen bàkkaar ba mag mi ngi ci njëriñ it mi ngi ci waaye bàkkaar ba moo ëpp doole njëriñ bi yi yépp ay wàtte nit ñuy bàyyi par benn bàyyi par benn bàyyi par benn ba baa suñu borom it indi aaya bi ne ay yéen jullit ñi su ngeen mandee bu leen julli bu leen julli lu dul mandite ba dafa dañ ba ngeen xam li ngeen di wax loolu it mu lay jàngal mbokk ci mandi xamul lu muy wax am déet looloo tax ba yenn borom xam-xam sa am ixtilaaf ki mandi fa sa soxnaam ndax dañ koy considérer am déet parce que borom mu ne xatta taalaw ma taquluun loolu yeneen masala fiq la waaye ci mandi dëgg-dëgg xamul li muy wax mi ngi noonu bal bokk na ci li borom xam-xam yi wax sabab bi taxoon yàlla aramal sàngara ñu ne ñoom Hamza moo ànd ak ay xaritam ñu daal di daje fu ñu daje mu daal di dem ñuy naan di naan ba Hamza mandi daal di dem fekk benn gilimu Ali ibn Abi Talib mu ñëw rek dagg bos bi mooy loolu ci kaw mi ngi noonu ñëw ne gaa yi saaf leen ñu saaf bi Ali ñëwee wax ko Hamza yuuxu ko mu dem wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee jëm ci Hamza mun na ko waaw yow looy wax nii xanaa nekkul sama jaamu baay rek gis ngeen xam ngeen papaam Abdul Muttalib moo yor yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow nekkul sama jaamu baay ñuy fi naan dag may jox ay leçon fekk mandi la ba xamul lu muy wax ñu ne gannaaw ba nag la suñu borom wàcce aaya daa di ne ay yéen julit ñi innamal xamru wal maysir wal nangam comme nañ ko nar a jàng insha allah ci maida rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun mooy ci seytaane la jóge sangara ak carte seytaane la jóge moo xërëm yi moytu leen ko bu ngeen bëggee jege fa lantu muntahun keroog nag la sahaaba yépp bàyyee sangara lu dul benn benn si yàlla nattu waaye ca la ca la nit ñi xam ne sangara aram na waaye mbokk li suñu borom ne bu leen jege julli lu tax lu dul da ngeen di xam li ngeen di wax loolu day wane ne mbokk kii julli war naa xam li muy wax am déet xam li ngay wax loolu it mbokk ñaar la xam kàdd gi xam maana bi malheureusement li ëpp tey ci julli ci tey bu ñuy julli xam nañ li ñuy wax xam nañ allahu akbar subhana rabbil ala attahiya fatiha xam nañ xam nañ loolu waaye li ëpp ci ñoom koo ci woon na ko waaw sami allahu liman hamida lu muy firi taayi bi ngay taayi depuis cinquante ans lu muy firi ah subhana rabbil ala wa bihamdihi lu muy firi la ëpp ci dama aadama xamuñu ko loola tax ba mbokk jullit xamal ne dégg làkku arab du farata waaye nag yow jullit xamal ne farata la ci yow li ngay déeyoog sa boroom dix-sept fois par jour imma ca fatiha ba la imma ca takbir ya la imma ca tasbix ya la imma taaya ba ngay taaya ngalawaay li moom fexeel xam ko tey yàlla may nañu ay jumtuwaay yu bari parce que bari tey ay ndaw yoo xam ne tey soo ko waxoon yow man day am naa whatsapp ndax doo mu ci firil taaya mu firil la taaya benn jour nga koy déglu comprendre ko man de fatiha laa bëggoon xam li muy firi xul walaahu ahad it mokkal naa ko lan la xul walaahu ahad di firi au moins boo taxawee di julli nga xam li ngay wax ak sa borom xatta taalamu ma taquluun borom boobu kon subhanahu wa taala loolu la ñuy wax loolu it borom xam-xam yi dañ cay dolli ne li borom bi ne xatta taalamu ma taquluun ki nga xam ne dafa gëmmintu ba xamul li muy wax ku mel noonu du julli lu dul mu ragal julli raw ko lu dul mu ragal julli raw ko amma bu dee ne jàpp nga ne mën ngaa nelaw ba pare waxtu wu daraw dañ naan la nelawal boo jógee nga daal di julli bu dee naafila moom dañ naan la bàyyi ko maadaama gëmmintu nga xamula wax ay naafila la bàyyi ko gis ngeen borom boobu it subhanahu wa taala ne su dee da ngeen ànd ak janaba bu leen jege julli ngeen ànd ak janaba lan mooy janaba mooy góor ak jigéen ànd nañ ci lal benn ndox génnul ci ñoom teewul ñoom ñaar ñëpp ànd nañ ci janaba wante ne gone tey dégguñu wolof wax naa ko ci dars dimanche passé benn waay ni ma waaw ndax ànd ci lal moo ñu bokk tudd rek déedéet boo ko àndu ci lal moo ñu def loo xam ne nii doom mën na caa sosoo loolee la ñuy wax ànd ci lal heure bu ñu ko defee ñoom ñaar ñëpp sangu war na leen nit ki nga xam ne it fexe na ba génn mënu yoo te bu dee say pexe la dafa xaram loolee teewul janaba war na la ki te doon guddi gént mënu yi génn ci moom ànd nag janaba dafa war a sangu ji naka noonu soxna bi nga xam ne dafa gis réglam wala ki wasi noon ba deretam jeex ñoom ñëpp dañuy considéré dañoo ànd ak janaba ñu mel nii yëpp amuñu droit di julli lu dul ne dañoo sangu moo tax borom bi subhanahu wa taala ne bu ngeen ànd ak janaba lu dul ngeen sangu amma nag borom bi mu ne bu dee da ngeen a feebar ba mënoo jëfandikoo ndox mi ngi noonu donte ne ne borom bi subhanahu wa taala li mu wax illa abiri sabil la ko borom xam-xam yi firee mooy jàkka ya mbokk jàkka fa la ñuy julli borom mu ne wala taqrabu sala ay kon bu leen jege fa ñuy julli loolu tax ba dañ naan ci ànd ak janaba mayu ñu ko muy ñëw di toog ci jàkka ji lu dul ne daa romb ci jàkka ji di jàll waaye ànd ak janaba ba pare toog ci jàkka ji loolu kenn du ko def ila abiri sabil lu dul da ngeen di sangu sangu janaba mooy lan mooy am ngam ndox raxas nga sa kaw bopp ba sa suufi tànk lii mooy sangu janaba leneen lu la waaye mën a wax ay détail la pour rafetal ko waaye sangu mooy lan raxasal sa yaram yépp lu mel ne lu ñuy wax ci sang néew day gis mbooloom caamin taxaw fii naan dañuy wër ab sang fu ne ñu dugg fa utu sang néew ah man de mënumaa sang néew xanaa mënoo sangu ku mën a sangu rek mën ngaa sang néew boo ko sangu néew du dara lu dul indil paan baag siwo baag raakol ba commencé ca bopp ba raxas ba ca tànk ba loolu mooy sang néew boo ko defee benn yoon rek sang néew bi li ci des yëpp ay détail la su amee nag moo gën ñu rafetal ko commencé xubbee ko ba jàppal ko ndeyjoor càmmoñ mais dama ne yooyu ay détail la ñëpp war a mën a sang néew ku mën a sang xar mën ngaa sang néew ñëwal rek raxas ko ba mu set loolu mooy sang néew jeex na borom boobu subhanahu wa taala nag ne kon su dee ne nag da ngeen a feebar amu leen ndox da ngeen nekk ci tukki amu leen ndox wala am ngeen ndox ci ndox mi da ngeen koo soxla wala boo kenn ci yéen jóge na ca wanag wa mooy demoon na tuur na ndox wala dem na ca wanag wa wala jote ngeen ak jigéen laalante ngeen jigéen ci wàllu sëy ca amu leen ndox barab bi mu ne tiim leen barab bi mu ne tiim leen allahuma lu dul laamastum boobu it borom xam-xam yi ñoom ñëpp dëppoo nañ ñi ki ànd ak soxna ci wàllu sëy moom daa war a sangu waaye bu dee da ko laal rek nag te ànduñu sëy loolee borom xam-xam yi am nañ ci ay uute da si gën a digg doom rek lañ lay wax bu doon lu mel ne ma zammaa rek ñoom dañ naan laal jigéen tojul njàpp laal jigéen tojul njàpp xanaa lu dul bi ngeen laalantee sa yaram yi nga bànneex bu yëngu ci yow ñu ne boobaa moom njàpp ma toj na bu dee it ba nga koy laal yaa ci jublu bànneexu dañ naan njàpp ma toj na mais bu dee daal da ngeen laalante noonu rek laalante boo xam ne jubloo ci benn bànneex loolu tojul njàpp am na nag yeneen version waaye boobu lañ ca tànn mooy daal laal jigéen kese tojul njàpp lu dul laal ba yëgal yëngal ci yow la nga xam ne mooy bànneex wala yow nga sàkku ko ca borom boobu subhanahu wa taala ne bu dee loolu am na ci amu leen ndox ay mu ngeen jàppe mu ngeen sangoo jóg leen ngeen tiim lu ñuy tiimee mooy saïd saïd la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne mooy lépp lu cosaanoo ak suuf beñ bala xeer yàlla lu mën a doon loo xam ne dafa cosaanoo ak suuf dañ leen saïd la mi ngi noonu moom la ñuy tiimee naka la ñuy tiimee borom bi mu ne masa leen seen kanam te masa seeni loxo te loolu it mbokk mooy tiim bi gën a ah mucc ayib wante ne ne da ngay gis ay xadis lu mel ne xadisu Ammaar ba Ammaar yonente bi alayhi salaam da ko yónni ci benn aajo mu dem ci yoon wa gént daa di war a sangu farata léegi moom xamoon ne ne ki amul ndox bu ma jàppee day tiim waaye xamul ki war a sangu dana ba te amul ndox nu muy def Ammaar ne na ma xalaat xalaat xalaat daal di futtee ko def yar mu neen daal di dem ca beñ ba sotti sama bopp ak sama sangu sangu daal ci suuf si ci gàttal daal di julli nee na bi mu ñëwee ci yonent bi alayhi salaam nettali ko ko yéen yonent bi daal di ree na ko Amar lii rek doyoon na la nee na jël ay loxoom teg ci suuf masa loxo ya masa kanam ga loolee am ñu ca jàpp ne tiim da ngay masa say loxo masa say kanam waaye mbokk yonent bi alayhi salaam dañu doon wax tàmbalee leen li yàlla tàmbalee Bukhari boobee génn xadis boobee soo demee ci téeréem ma ngi ci bind baabu tayammum lil wajhi wal kaffayn te it nam indee xadis boobee ñenn ñi di ngoy bay wax naan tiim ci loxo lay commencé même Bukhari boobu indi na xadis bi wane ne tiim ci kanam lay commencé doog a dem ci ay loxo lu tax lan la borom xam-xam yi di tontu ci loolu ko yonent bi wax masaa ne loxo masaa kanamam dañ ne Ammaar dafa doon tiim pour sangu janaba te sangu janaba la nga xam ne mooy tartiib mooy tegale cër yi du ca farata masalan jàpp dañ naan booy jàpp raxasal sa kanam say loxo masa sa bopp raxas say tànk mais ki doon sangu janaba tey ñëw commencé ci ay tànkam di raxas ndigg li bopp bi ba ci kaw ku mel noonu sangu na janaba te sangu janaba boobu yóbbaale na am njàppam bu ko neexee dem julli ji kon ñu ne kii tiimal sangu janaba nu ko neex def bu ko neexee jëkk loxom bu ko neexee jëkkee kanamam amma kii tiim ngir njàpp la nga xam ne mooy la gën a mucc ayib li yàlla wax famsahu bi wujuhikum wa aydikum masa leen kanam yi gannaaw bi ngeen masa la nga xam ne mooy seen loxo borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne moom mooy alaafu alxafuur te loo xam ne xeet bi rek ñoo ko am yonent bi alayhi salaam nee na yàlla jagleel na ko juróom musu ko may ab yonent benn mooy moom la yàlla mosu yónni ci mboolem yi xeet yeneen xeet yi seen xeet lañ leen yónni gannaaw ba yàlla may na ko nusurti bi roxabu mooy bu waree dajeeg ay noonam pendant un mois noonu dootuñu nelaw guddi yàlla may na ko mooy lam gañee ci ay noonam mu lekk ko moo ki sahabaam yeneen yonent yi jëkkee safara moo doon jóge ko asamaan lakk ko yàlla may na ko suuf yépp yàlla defal na ko ko jàkka defal na ko lu ñuy tiimee xëy yu jëkk ya daaw ñu daje lu jël seen place jaamu yàlla yi amaa ñun jullit fu ñu neex man faa daje julli fa bu ñu amul ndox daal di tiim gannaaw ba yowmal qiyaama moom la yàlla may muy ramm ramm go màgg goog yi nga xam ne mboolem yeneen ci dañuy topp ci gannaawam kon lii xéewal la gu ñu yàlla defal mooy yàlla mu ne day jéggale te yét yàlla subhanahu wa taala day yërëmaate gannaaw ba nag la borom bi subhanahu wa taala jeexale ci suñu darsu tey bi mooy yahud yi nga xam ne yàlla joxoon na leen téere mu leer ca melokaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu daal di jël la nga xam ne mooy ak réer yashruuna dalalata bil huda bànneexu àdduna bu jege bi tax ñu jël ak réer te mooy fàtte seenu téere fàtte mandarga yee ci yàlla wax wëlbati ko bëgg julit ñi ànd réer ànd ak ñoom wa yuriduuna an tadillu sabil ñooñu mbokk mooy ñi nga xam ne ñooy suñuy noon dëgg-dëgg te naka yàlla waxe woon depuis quatorze siècle moom mooy wébi ila yumi din mbokk mbon gu am ci kaw suuf xamal ne boo ko dàqee ba dàq ko ña nekk ci bopp ba mu may yahud yu bon yi ñoo jiite banque ya ñoo jiite cinéma ya ñoo jiite lépp loo xam ne casino yaak night club yi gën a mag ci kaw suuf heure boo demee da ngay fekk ne ay yahud ñoo nekk ca bopp ba yal na yàlla musal ñu ci seen ay yal na ñu yàlla déppale ak ngërëmam yal na ñu yàlla laabal laabal njaboot gi may ñu aafiye fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw loolu suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam di wax ne shiyaatine yi la nga xam ne moom mooy al maradul jaan mooy seytaane ya nga xam ne ñoo fettiirlu nekk di woote ci lu bon ñoo ñi la yonent bi alei salatu wasalaam ne daañu leen tënk ci koor gi ba baa koor gi di jeex amma doomu aadama bi ña nga xamee ne ni dañoo ànd ak moom di ay shiyaatin ñoo ñee da ngay gis ne maana bi borom xam-xam yi di wax ci tënk ba nga xam ne moom lañ leen di tënke mooy aji judit bi bu wooree seytaane du am pexe ci moom ndax yonent bi alei salaam mu ne inna seytaan yajri fi ibni aadama majra dam seytaane day dox ci doomu aadama la nga xamee ne mooy ne deretam di doxe koor ga ngay koor da lay tënk ci loolu waaye firiwul ne yéeféer yi nga xam ne wóoruñu ak naafiq yi nga xam ne wóoruñu corona ya ànd ak ñoom ñoom ñëpp dañ leen di tënk ca la nga xam ne mooy shahru ramadan waaye bu dee ne daal ña nga xam ne ñooy ku yi jinne yi almaradatul jaan nga xam ne ñooy indi fitna yu mag ya ñooñee suñu borom yàlla dañ leen tënk ñeel julit ñi wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam ki àndoon ak imam def safa wiitar soo bëggee naafila ci guddi gi day dem na fi la rek ca du wiitraat yonent bi alayhi salaam danaan wax bu ñu wiitar ñaari yoon ci guddi gi ba nga xamee ni nii soo defee wiitar ba pare man ngaa defar say wiitar ca doo man ngaa defar say naafila saa ngi wiitraat lam wax ne def leen seen mujjeelu julli may wiitar loolee dafa nekk ci ngëneel ma yow mii naafila na nga mujje wiitar ba waaye bu dee ne da ngaa wiitar ak imam te loolu di ngëneel bu rëy ndax yonent bi alayhi salaam nee na ci ànd ak imam ba imam ba pare ci naafilaam dañuy considérer guddi gi yépp da ko doon naafila kon li gën nga ànd ak imam def witre bi soo yewoo guddi nga xool la ngay def ci naafila nga def ko sans reprendre la nga xam ne mooy witre ba wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal képp koo xam ne da ngaa nekk ci am réew réew yooyee am ay charte yu ñu tëral charte yooyee muy am àq yu cay jógee nit ñi di ko jëriñoo doomu aadama da caa war a tënku tànk nekkul charte buy daganal lu xaraam wala di araamal lu dagan rawatina bu dee ne yow la cay àq ca charte yooyee su su jotee nga dem laaj ko lay droit ya nga xam ne danga koo war a joxit xamal ne loolu danga koo war a joxe heure boo koy joxe nga jublu ci yaa ngi koy joxe ngir jàppale jaami yàlla yi nga xam ne mënuñu liggéey lu dul nag nga dem ba yëg ne yow kat lii ñu la teg ci ay aq yoo war a joxe loolee jiggi na dayoo ba dalay lor loolee la ngay def ba moytu lor ga moom da nga koo def ngir moytu lor waaye daal bu dee lor amu ca te lii mooy ak réew mi loolee def nga koy def da nga koy jublu jaamu yàlla mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw naam bismillah waaw lu tax mu ne dafa am ñoo xam ne dañ naan fu weer yi feeñ dañuy woor Arabie saoudite ñoom ñoom dañuy xool ci seen dëkk waaw loolu ñaari gisin la am na ñoo xam ne dañoo gis ni gox bu nekk da nga war a tënku ci say gisin loolee soo demee te la nga xam ne mooy ay mazhab ahmad lu ëpp ci ulama wu saoudiya tënk ñoom loolu mooy seen gisin am na ñeneen ñu fa nekkul gis loolu waaye boo demee ci biir Arabie saoudite it am na ñoo xam ne la ñuy ubbee mooy weer yi fu mu feeñ ñëpp a war a woor loolu moo tax ba lu tax nit ñi di tënku ci ñoom jàpp naa ne ñi naan bu fee fu mu feeñ dañoo war a woor tënku ci Arabie saoudite dañoo tënku ne fu mu feeñ te mu leer dañoo dañuy woor na doon Arabie saoudite nag fu mu mën a doon maadaama seen seen seen gisin mooy fu mu feeñ dafay woor kay bu njëgee Arabie saoudite feeñ ne fa day dañuy woor waaye bu doon am nañ xabaar yu wér ci wér ne feeñ ne Pakistan it même bu Arabie saoudite warul dañuy woor looloo tax ba jàpp naa ne Sénégal am na fii ay at yoo xam ne nii daaw rek daaw rek da ngay gis ñi nekk fii ñu bëri di di di di gis-gisin boobu wóori nañ ci Arabie saoudite wariwul daaw rek a ci mujj kon daal loolu muy mbir la ñaari gisin la ci yoo xamee ne nii yàgg na fi li ciy waaye def daal daa iman na doon lu sincère digganteem ak boroomam bu sincère sa diggante ak sa boroom rek incha allah yàlla dina la bindal tuyaaba même boo juumee soo soo dëppoo ak dëgg yàlla bindal la ñaari tuyaaba wallahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar naa kon mbokk mën nañ doyloo loolu ba yàlla dajale waat ñu fi subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk